mina shaytaan rajiim asalaamaaleykum mbooloo mi asalaamaaleykum sama sœur yu baax yi asalaamaaleykum sama soxna yi sama mag ñi sama rakk yi jigéen ñi ñu nii ku ci nekk turam ak santam di ci weeru koor bi di leen baal àq fii ñu tey comme ni koy defee tous les jours. mooy kër gu mag buy drapeau suñu yaay ci biir di ñaan koy bàyyi ñu ngi koy nuyu di jël nuyoo bi yëpp di ko teg ci loxoom ndax fi kilifa di sant ñu ngi gërëm ndax borom kër gi bu baax rek la ko bokk loolu laa jëlaat seen bu loolu di def. lu dara ndax ku dem tey sa kër ba fekk suukar soo jógee bàyyi na fa suukar li ñuy joxe du dara maanaam acte la rek symbole boo xam dañ koy fëttalante coloré suñu diggante di wax ni boobu ba léegi am lu ñu bëgg ci réew mi di am lu ñu bëgg ci dëkk bi ci gox bu baax a baax a baax tey jii suñu fii. yéen mbooloo mii yéen a waral ndax benn lam rek ma la fi yaay wax bu ngeen bu ngeen di ñëw seen yite yi ngeen di tàgg ma lay seet xam naa ni tax na képp koo xam ne maa ngi koy sama tànk ci wàllu politique jox ko cër ndax politique nag mbooloo xam-xam bu bari du alal ju bari da jëpp solo mooy mbooloo te yàlla dogal na.

wala damay képp koo xam ne mu ngi ànd ak ma lay sekk bu mu yàqamti ndax ay mbiram toujours noonu lay wax nii foofu moo nekk léegi kon loo xaar rek suñu borom mën na faa fekk kon di wax nii bu leen xaati incha allah wala lépp lépp dina baax yi xaw naa yéex dëgg la ndax buñ jógee ci jàmbal yi dafa waroon topp tout de suite mooy financement yi waaye bi ndaje kilifa yi ñun am na ci yoo xam ne lu ci bari di ko defee sa poos sax euh, maanaam baaxul ndax dafa am loo xam ne état daf ko pare pour jigéen ñi ak ndaw ñi ak emploi maanaam ñu bari ci ñun sax xamuñu ko waaye direction de l'entreprenariat rapide muy ministère bu mag a mag département bu mag a mag am na pour jàppale nit ñi ci xëy les 3 FPT muy formation xam ne képp koo xam ne am nga GIE képp koo xam ne am nga document képp koo xam ne am nga mbootaay boo bëggee ñoom mën nañoo jóge Dakar ñëw formé la lañ lay formé sax ñoo la ko jox yenn saa ñu bàyyi la dal ci kees gi pour nga démarré ci loolu am na fi FONGIP am na fi ANPEJ am na fi c'est vrai nag bi may politique dama ñëwoon day nguur gi day ñi fi nekk xam naa mun ñoo ànd ndax li ma bëgg maire rek la te ñoom état central waaye looy gën di dox ci politique dañ ci xuus di gën a jëfandikoo gars yi ñun la lii lépp nag askan bi fi nekk boo ànd ak ñun sax ñëw na nga jël ko jox sa askan. ba tey jii ñu ngi dem topp ko pour xool suñu jàmbal yi nan lañ koy defee GIE ñu ci war a former ñu former ci ñu paree ñu joxe financement bu ñu joxee financement sax ci li ñu yàlla wërsëgal mën nañu koo jël commencé ci benn jàmbal ñaari jàmbal ñetti jàmbal ñetti jàmbal mais ngeen xam ne rek lépp ñu liggéey woon incha allah war bi di leen ko wax parce que bañ koy wax xalaatuñu ko ci état dañ ko xalaatuñu ci suñu yàq rek kon awa ñu ngi doon foofu sa laaj eh, ñëpp nag coordonnatrice ndax vraiment lii dafa am solo waaw lii dafa am solo parce que politique dafa metti eh, te nit ki eh, boo fi nekkulee souvent da ngay neex a ruur boo fi nekkee sax dañ lay ruur nekkulee ruur bi mooy nee naa la ma ne ah man ka nekku fi hmm. maam mën ngaa ñëw ci man yooyu dañ koy dégg lu bare bare bare ci suñu mbootaayu politique waaye yàlla dogal na boobu ba léegi bu doon loolu tey kon maam Seydina du fi toog Serigne Assane Seck du fi toog Mouhamed du fi toog kenn du fi toog parce que ñu ci bari dañuy ñëw ci ñun naan gars yi jàppale parce que xam nañ ñun mbootaayu qualité dina am maanaam ay nit ñoo xam ni fëx yóbbuwu leen ñu mën àndal man yàlla dogal na ñu ma àndal ñëpp ñu dëggu nañu parce que kanam yëpp xamee na leen instant yi am jafe-jafe pour jaar ci tur yi mais kanam yëpp xamee na leen quatre ans ba léegi ñu ngi fi kon xam nga loolu du ay nax di leen wax ni ah incha allahu rabbi yàlla dinañ defal yàlla moom boo nekkee ci lu baax di am yaakaar dinañ ci fekk ndax julli geeg woor gi ci def sax yaakaar rek la yaakaar rek la waxoon dugg naa mbiru àdduna bi ñu toog di yaakaar incha allahu rabbi dina ñëw. di nuyu bu baax la ñu ñëw bokkoon classe jàppal Matia Fall waaw Lamine Fall ba léegi tamit xam nga mu jàpp. waaw kon bi suñu koñ la dëkk suñu dëkk la waaw suñu maam yi ñëpp nekk woon ak suñu baay yi kon li ñu fi bàyyi tey ñun dañ koy téye ba mu baax bàyyi ko fi suñu suñu ay suñu ay doom ak suñu ay wax ni élection yi mi ngi ñëw ah mbalee nag jotuñoo def débriefing ci élection yi passé wax lu tax ñu ànd ak président Macky Sall ak benn bokk yaakaar waaw kuy politique ni sama askan moo ma ñor kuy politique ni sama ñooñ ñoo ma ñor kuy politique ni Medina Fall moo ma ñor tey ñu sant ñaari doomu Medina ci liste législative yi ñu xam ne ñii bu mu jàllee dañu nekk député loolu xam ne mosul am Medina Fall zone Nioro doxalu fi te mant lay jël waaw man mooy politique ñu ni Cheikh Gueye nii sama rak dañ ko teg ci liste yi man ma teggi ko fi jàppale keneen xanaa man woon it non loolu moom mënu ma ko loolu bàyyi politique sax moom gënal képp koo xam ne teg nañ ko fi doomu benn faat mu jiitu man kooku dinaa bàyyi lépp bàyyi jàppale ko bu tegee doomu doomu doomu comme Nioro dinaa bàyyi lépp jàppale ko da day xam damay xam ne kooku bu amee bu mu joxul joxul waa jambal bi sax jox dëkkandoo yi bu amoon fii député lay problème yu bari ñu koy jàkkantoo tey day jeex moo tax nit ñi dinañ juum yenn saa ci vote parce que lu ñu xam waaye mu ñu amoon député moo gën bañ ko fi am ndax benn faay bi li fi am député kenn mosu fee dégg kenn mosu fee dégg ministre kenn mosu fee dégg DG ñun di falaate rek loolu nag man day vraiment ma lay seet bis bu ndaw mi dafa laajee damay bàyyi lépp jàppale ko bu doomu dëkk bi laajee ma bàyyi lépp jàppale ko ndax loolu moo jaar loolu moo waraloon suñu ànd ak Benno Bokk Yaakaar ak le président Macky Sall ànd bi nag ci dara ndax boo nee ba toog ak le président de la république ci saalam mu invité la reer ne la ma ne kaa ñu toog waxtaan ci li jëm ci dëkk bi li jëm ci àdduna bi ndax yàlla dogal na ñaar fukk ak ñaar ñun ñu ngi tukki kon xam nañ àdduna bu baax fu ne nañu dem ci àdduna bi am na liy dox daal lañ dox waaye li mu mën a wax daal mooy que le président Macky Sall nitu jàmm la man loolu xam naa ko mm. le président Macky Sall nit ku bëgg dëkk bi la le président Macky Sall nit ku yéene dëkk bi lu ne nag nañuy wax waaye kenn du wax dëkk dëkk bi liggéey ko métti mhm. métti jafe-jafe jamono nag man nee naa ñaar fukki at ak àll boo ñaar fukki ñaar at àll boo ko defee di nga xam ni xew France mhm. xam ni xew Canada ndax yooyu dama fay dem xew yi ci dëkk yi yooyu ñu jógee dëkk yu sedd yooyu yëpp tey bu fa jamono ji moo tar mhm. ndax guerre yi corona bi jaww ñu jàpp ñu xam nu mu tar tar tar tar li nga xam ne nag kenn mënu koo jënd te mu njëkk muy jàmm mm-hmm. nañ fexe ba téye ko mm-hmm. man loolu laa yor askan bi ku bëgg nag boo demee sa biir mbañ nga votel mm-hmm. parce que nit ku ne aussi xolam doo ko contrôlé kenn mënu contrôlé xol kenn man moo demee may woote xo xamu leen ko kon ku ci nekk dama lay bàyyi ak sa akulaay taay waaye liñ bokk muy dëkk bi nañ fexe ba jàmm bi sax liñ bokk muy dëkk bi nañ fexe ba ko yàq ndax kuy defar te pareegoo mais mënoo di yàq suñu dëkk yi dëkk suñu développé na ñëpp wax kon dañ koy tabax ñu gis ne président Macky Sall ñu def ay jéego yu am solo ci wàllu tali yi ci wàllu oto yi ci wàllu saxaar yi ci wàllu hôpital yi ba ci social yu ñuy sax daf koo yokk mën naa am nag ñëpp mënuñ ci am waaye bourse sociale yi y a plus de cinq cent cinquante mille ménages yoo xam ne tey jii ñu ngi recevoir ku ci ne vingt cinq mille ndax loolu mu sara de alal la ak koom boo xam ne ci réew mi la bàyyeekoo mu koy séddalee noonu ndax ñun réew yi nekk tey képp ku xam ni dañ koy fay juddoo da nga fa da nga faa yeewoo moo xam ne liggéey moo xam liggéeyoo di nga am foo dëkk di nga am loo lekk di nga am loo naan ndax alal dëkk dëkk day généré alal jox ñëpp ñoo ko bokk tey jii loolu Senghor mos ko fay def loolu Abdou Diouf mos ko fay def loolu Abdoulaye mos ko fay def waaye président jël na 550000 ménages dina ñëw ne 25000 te bu banee yokk te loolu lépp mu ngi koy def te pétrole bi exploité wuñ ko gaz bi exploité wuñ ko. nit ñi rek dañuy wax naan nangam nangam nangam waaye daal li am solo ba mu solo mooy ko mu ngi def ay jóg yu solo état nag kenn du sax moom du fi nekk cinquante ans du fi nekk vingt cinq ans rek jàll keneen ñu def wàllam waaye ci processus boobu ci transition boobu nañ fexe ñu téye jàmm ci ndax nag looy wut ka moo jàmm du ñëwee def doog doog ko jariñoo suñu doom yii dañ leen na bëgg ah ñuy wax naan bu sa ndey dee nga juraate ñu seetaat wax jooju dem xaw naa ñaaw suñu yaay yi nag jur moom dinaa métti na. waaw jubluwaay ëmb rek métti na waaw ñun ñi xam ne dañoo nekk ay papa sax suñu soxna yi toolee diggante sax di leen bëgg a jigéen ndax ndax ndax xam xam na la ci la ci mbir yi kon ñu xam ne suñu doom yi eh, mooy suñu alal mooy suñu futur mooy suñu mooy suñu trésor ñu fexe ñu jëm ñu xam li ñuy def kenn mënu contrôler kenn ndax li ma wax bañ gàcc bi ci dugg li nga xam ne loolu neex nga def waaye nag ñu fexe daal ba jàmm am fi ba yàq bañ fi am ba saaga ba fi am ba xeex bañ fi am élection yi ñuy jëm ku nekk def Sénégal na tàkk di tàkk ñun ba fexe ba mu bañee tàkk ndax ku taalul ci du ci dafa tàkk kon réew bi koo taalul te du kon benn tàkk dafa am ñu wàcce foofu suñu kàddu di sant Awa Sall di sant euh, soxna si euh, Sène jógee Thiès noonu di sant Madé